mbokk yi comme niñ leen ko defalee fële ci Pikine ñu ngi fii ci parcelle fii la Franc di ngemboo ànd ak ay mbokkam génn gis ngeen mbooloo mi nga xamante ni gis ngeen ko fële ci Pikine gis nañ fa Ama Balde gis nañ fa xale yi nga xamante ni vraiment soutenir nañ kii di soq ngir yéene ko ndam ci combat bi mu jëm mbokk yi fii nag ay xarit Franc ñoo fi dëkk ay njaga ay mbokki mbërëm ñëpp ñu ngi fi grand yow laay njëkkee noo def. waaw ñu ngi fi gërëm baax a baax di day bëri xale boo xamante ni Pikine gépp dañoo génn dooleel ko mu ne tay damay lu mën a xew du ma ñàkk sama diggante lu mu leen wax leer na de 30 secondes lu leen wax leer na de 30 secondes kan moo ko wax Franc 30 secondes mën ko daan so nañ ko bu yàgg de kooku xoolal lu garaaw laa lay wax 7 kilos yàpp mbaam lay lekk du naan di 5 bière du moromu boy te lu mu leen wax leer na de ñetti ngeen lay bi Eumeu Sène day jël wàllam Ama jël wàllam Boy Niang jël wàllam mu def ni tabaski màq la koy def tabaski màq lay def booy bi. lan mooy tabaski màq. bu yaroo. na yaru rek nañ ñëw rek yaru. nan nga tuddee yaru ci làmb. Ah. ñëw bañ a bëre bañ a xeex bañ a def daan. lu muy indi rek booy boo ma ko doon tar dinaa ko nokku naka daan. nokku saaka la de ñoo ngi jéggalu mbokk yi waaye mënul jàkk. gannaaw nag man genre laa tudd ñu wax sëmp. waaw. tey Franc day bëre xale bu am doole. bu mën a bëre. bu mën a xeex. bu fonk bis muy soog. soog daan nañ ko bu yàgg sa daanoo loolu. déedéet non sa waay yow da ngay xaar kon. soog bu mu jëlee avance njaago bu jënd ci mbaam jënd ci vin la pare ñun tey suñu ñetti ngeem la ñu yow pour Ama Boy Niang Eumeu Sène dañuy bëre par force nag amul daw laaxu nañ dem nga seetaan révision bi léegi ci kanam nga xool. révision mooy lan. soog daan naa ko yàgg na. moo ko yow sa a que ça. soq mbooloo mi nekk ci ginnaaw Pikine gépp ànd ak soo parcelle xoolal lii saa jëlal lii ci kaw xoolal xoolal fële saa lan mooy mbooloo yow mbooloo daa mën a weesu lii nga gam geesu gis say mbokk sa waay soq lekk na avance njaago de dina ko bëree par force billaahi maa la ko wax par force nag waaw loolu moom gis nga moo yow mu ngi ci biir ñoo añoo ndoo defandoo lépp mën nañu booy 30 secondes laa ko mooy bu ñëwul tey mu dee saa bu après ci kanam ci kanam bu ñu la wonee redivision ba pare ñëwal ñu tase def nañ fa kaldu mbaam te sook nee nañu <laughs> soo ko bëggee invité nañ ko <laughs> waaw que ça. yooyu indi suñu mbër rek Franc. xam nga ki muy bëre xam naa ko bu baax a baax. soqu bu ko ram daan di daan maa ko yóbbu. man maa yóbbu ram daan. moo tax tey ma ñëwaat pour yóbbuwaat Franc. fu ma ko jaaroon rek laa koy jaaraat. yow xam nga li xam nga dara. soo yor nga image yi nee naa la fu ma ko jaaroon laa ko koy jaaraat man liif barke Serigne Saliou ndax daa bëri wax dinaa ko lépp dinaa xeex dinaa bëre moom incha allah su neexee yàlla suñu borom ndax wax waxkat la te moo ngi jéem a ak Franc ak ay mbokam mbayaar gu muy wax mbayaar gi ñun ñoo ko moom bu ñu jéem a jaxase sax ak Franc mbayaar gi wax parcelle la mais tamit dëgg la day jugee ba Pikine ñëw di fréquenter parcelle. loolu ñun suñu jàmm moo mel noonu moo tax ñu ñëw ku ñëw rek dañuy bokk ak yow mais tey ji amul benn loo xamante ne ñu ko may benn porte boo xamante ne mooy loolu loolu day dañ tey ba suba ñu continuer waat ko incha allah fu ñu ne fu ñu jaaroon rek la jaaraat su neexee yàlla si. loolu dafa leen porte bi la war a franc war a génnee ñii ñoo fi géré. grand nuyu naa la de. waaw Baye Diéli ñu ngi lay fay. alhamdulilah sant Mame Mbaye. Mame Mbaye. tënkaade mhm. bi. tënkaade bi dafa tàng rek. dama tàng kese waaw làmb ji la nag làmb ji moo ko laaj quoi. ana Franc. Franc mu ngi ci ko gisee. Franc comme en super forme alhamdulilah. dañ koy ñaanal yàlla may ñu ñu yegg ak jàmm esaat incha allah. soq nee na Franc lu sax lu tax mu jël ko ndax pikin gi ànd moom nekk ci ginnaawam dooleel ko non tey day dee waaye Franc du ko. waaw dama lay wax benn wax. soo tegoon Modou Lo Balla Gaye Bombardier tegaale si Siteu tànkindaa bi su soq waxee ñee seen adversaire dañuy tiit soq làmmiñ bi kese la am ci làmb ji amu ci leneen làmb ji kese kese kese kese koo xam ne saison day Franc day compétir ay cent combat si ay mbabat ak koo xam ne day toog chaque deux ans mu nuwee ngembam mooy lool soq lu mu def ci làmb ji ni nee na moo ko dàq bëre jënd yu mu daan Franc daanu ko yóbbu na toog cinq ku ne ay fin de fer la daan jàpp di leen fooye naan di la fi daan Gamou Gueye Pambaay 2 par avertissement mënul daan Pambaay 2. ndigal jël bu rëy la daan ndigal. ah bu fàtte ndigal jël bu rëy la. non ban ndigal ku am 14 combats 10 victoires 4 défaites ak ku am 10 combats 10 victoires 7 5 fois champion d'Afrique deux saisons yi Franc def 107 combats 103 victoires 4 défaites qui dit mieux. mooy loolu jili yéen da ngeen xam li ngeen xam ba pare duñu ko laaj duñu soral lii téeméeri soq franc moo leen mën xam wax na ko nag lu mu ko wax lu mu ko wax soq ba léegi gëmu ko su arbitre sifflé day def lu muy def dem yoonam ñun koy dañuy ñaan yàlla arbitre sifflé soq jaayu rek ñëw si franc bëgg wala su ko franc wooyee si terrain mu fekk si ko mais arbitre su sifflé xam nga dafa tàng si nawet lañ lekk dañuy bañ soq dafa téye nit ñi ba mu taw na ñëw def lu muy def njaago bi daan ko te mu xool fu bëri suuf ah njaago bi su ko yëkkatee da koy dóor suuf de waaw yow incha allah. ku naan benn ñaata ku naan saam ñaata duñ benn. loolu de wolof a ko wax. grand. yow doo doon añ. ah doo doon añ. añ man añ nañ bu yàgg. Ah, sa eh. nga am. da nga ko naroon doomu sañ nañu tere añ. ñun pare nañ de. ñun li ñu reeree li ñuy lijjanti ay saa mais pas ay añ. pare nañ ci añ bu yàgg. Ah. billaay ñun wax dëgg waxu Sonko de. ñett ñu ko andi pongo li ci ginnaaw soxla. waaw ah, kay ñun bëggatuñu lu yomb soq lañ ko jël sax ñu ngi naan dafa yomb mais bëgguñu loolu. grand yaa ngi taxaw rek. waaw waaw maa ngi daaw a bañ. bu tax nga ne daan nañ ko pare rek. yow du dara daan nañ ko. soq ñoo ko mën. coow moo ñu boole moom mais ñoo ko mën ñun. mu yor Eumeu Sène bu génnee ay médailles am comme ay médailles lay jaay moo ko bu saamee Eumeu Sène saam Eumeu day xaar kon du ñu moromu soq coow ñu boole moom mais ay Eumeu Sène soxla. kii li mu jël si ay médailles Eumeu Sène jël ko si ay médailles ah, waaw voilà si biir di waaj ah, comme ni ko doon gisee rek ni mu doon demee di jëli ndam di andi noonu lañ ko gisee doon noonu lay demee tey waaw soo ko day xaar lépp lu mu andi daanu moom lu mu andi daanu moom bu xeexee ñu daan ko soo ko mënul xeex mënul bëre mënul xeex mënul xam nañ ko baax mënul xeex mënul bëre jaajëf am na solo grand taxaw ci porte bi yow sa taxawaay bi yàgg na. non man après laa wax quoi après laa oui nombre moo waaj quoi moom. gannaaw loolu. waaw mooy lu mag rek lu mag la. mbaam àll bi amul caaxaan. waaw yow damay pikiiru jëlay pikiir door ko sa tànk muy néew ñaan am nga doole ngay ibbeeku ci stade bi di yuuxu boo xullee ko ñu ne rey nga cinq personnes te mosoo def dara si àdduna soo ko làmmi jëy réew rek yuuxu nii rek xam nañ ko bu baax barki alxuraani karim xam nañ ko bu baax a baax. tey ngeen génn ci moom day sóob wóor na yàlla day sóob bu ñu bëree wure bu ñu wuree xam nga boo ñaa waxoon na ko Sa Thiès mais sa moom bu ñu wuree billaay walaay fu mu gisatul mbapat day daw. fii fekk nañ fi cour bu ndaw fe fekk nañ fa cour bu mag glace yi gis nga ko fële fekk nañ fa glace déet waay yëngal na jabaatu Franc mën na daan Sokh nii nii sama ginnaaw rek da daan Sokh am na problème waaw waaw Sokh moo am problème si jëm boppam nekk njaago du ay caaxaan de bilaay maa la wax lii eh njaago yi takk nañ ba dëgër njaago yi takk nañu ba dëgër wis xorom ba ma ngay wis ndeysaan ma wis ndeysaan sëgg na moom ana lan lay def ndeysaan ana lan def seet seet bàyyi leen buuxa bi ñii ay xale lañ bàyyi leen buuxa bi li amul saas tay Franc rek moo fi star moom la waa jàmbaar génne ay millions fay ko ne ko kaay laale ak soq muy génn këram. lamb ju nar a garaaw ndax loo ma gis ci Sokh gis ko fii ci Franc Sokh dañ koy duma bu rusee daw ñu faat ko ci gàttal laa lay wax nii de ci gàttal. lamb amul faat ci gàttal quoi ma kon na daw dañ koy duma bu rusee daw ñu wàccee ko nee na franc mooy taxaw ngir yàlla rek ñu ngi koy ñaan nga dëggal boppam mu taxaw moom moo ne booy bi day bëri ay bëri jéeg ngir yàlla la taxaw parce que ñun bëgg nañ guddee stade dañu yàkkamti maire bi daf ñoo yónni yàkkamtuñu yaa ngi booy parcelle bi la ñu wax futur roi des arènes kii bu paree moom la jox couronne bi te waa Pikine maa leen di ñaan ngir yàlla buñ paree buñ paree ci sox nañ ma jox seen benn ténor ñaar yi ñuy bàkkoo am ma nañ ma. yow doo génn Pikine même combat bi lu mën a xew. saa waay déggoo lu ma la wax jël beneen bi teg ko Canada. am na sa benn tabure bu ma tegaale Lobat Fall parce que tam nu jaaree noonu ku gën ma delloo la ku génn ma delloo la Pikine ku génn ma delloo la fu mu ne nii wala lamb ji jooju lamb ji pour si ji ci gàttal booy bi moo ko téye franc waaw ci gàttal laa lay de franc moo téye lamb ji futur roi des arènes ngay waxanteel nii nag jaajëf jooju Sidi from Casa Sidi from fa lañ jógee bàyyi tàng jër muy catastrophique ñett ñan ñett ñi. Boy Niang Ama Balde. amoo contrat Boy Niang. amoo contrat ak Ama Balde soq nga amal contrat te soq nee na boo njëkkee ci moom doo laal keneen. soq duñ ko dóor nang une minute ma man dama gëm duñ ko weesu une minute trente la ñuy xaar yeneen trente yi ñu song ko loolu kay amul wax trente secondes soq da may trente secondes mu xaar su ñëwlee si yeneen trante yi ñu wàccee ko loolu kay dafa leer. bu Franc demee deux minutes combat bu defee deux minutes est-ce que supporteru Franc yi dinañ am confiance. ñun ñun man en tant que man boog su ma su ma sañoon combat bi day durer une heure de temps ñu koy duma muy dem di ñëw mais saa moo ko décidé noonu te ñun si moom lañ àndal lu mu décidé rek loolu la ñuy dem une minute la du ko weesu ci yàlla kay. bu ngeen làmb neex foog ñetti boo ko ci de Franc bi àndaale ñetti ngemb pour Ama Boy Niang ak Eumeu bu dee soo kese làmb bu bu gën a lamb neex soo xamul lu mu jël amaa na ñaar lay jël bu ki bu ki jëndul mbaam dina njaago waaw njaago bu di ko fuure lii ci na njàpp. loolu mooy doomu njaago du dof man njaago laa. barki maam Cheikh Ibrahima Fall sook laa la ne bu ñu une minute franc du egg ci kër gi fii nii fii ko. sox mënul bëree sox da ngay def erreur mu daan la barki alxuraanul karim ñun Franc yabuñu sax mooy ndax di xeexam sox a loolu du yoon waa Pikine ay dawkati peloton lañ ñu andil Eumeu Sène xam nañu amul waa Pikine ay dawkati peloton lañ am nañu problème bu mag oh, dama laajte lan mooy ucaay ucaay ucaay ucaay doomu njaago bi lañu amal affaire ucaay waroon na waroon na waroon def waroon na gannaaw du guy kay guy waroon ñu soow bi tuuti waa ñu soow bi ba mu bi sedd na de. guy guy guy allah. moo tax wàññil bu mu ndam sedd ndam leen bëgg sedd incha allah ngeen taal clim bi toog sedd la xel di dal. non njaago leen àndal njaago or bi. njaago bi lañ àndal. njaago liy tiis lamb. ragalul loolu. pare nañ de. Franc kan la mu di tiré. Franc ci làmb tey lay encaissé bu bu rëy ci moom. sox erreur la ma def quoi xam nga boo xam ne day tiital góor mais ne lépp dëgg la lu leer nag laa la wax. li lu sax làmb sox doxu ñëw jug quoi ñu nekk de Franc nii nii nii bo boo ñaan la ñëw amaat seen ñëw. parce que amul mbër bi wax li mu wax rek xam nga chauffeur bi mi ngi nii toog fi ñu déglu Youssou Ndour ñu ngi nii kon xel dal ñaari chauffeur yaa ngi nii chaque année chaque combat bu jot ñoo yóbbu li ñu wax rek nañ gore te jëfe rek seen 100 pour cent bi xaw ma seen pour cent bi ñu wax ñoom. su paree après nañ ko ñëw complété mu mat comme franc moo tax 200 pour cent am Pikine nañ jox franc 200 pour cent lépp xam ne attan ko waaw ñun daa xamul lu ñuy def dañuy gërëm ñu jàppale ci combat bi rek ñu fi taxaw mbër yi xam ne jàppale ñun loolu instant foofu lañ toll di gërëm ñoom Gora Sock ñoom euh, Dame ak suñu grand yi ne ci koñ bi jàppale ñun ñëpp daal ñu leen di sant leen gërëm ci combat bi seen taxawaay rafet na foofu lañ toll di laaj aussi ma jeex na waxal ak Mbacke suñu grand yi nii grand Mbacke Mbacke wuyul sant yàlla rek sant yàlla rek <laughs> non déedéet non Franc kenn du ànd moom di tiit nag kooku xale la ah. waaw am na doole mën na bëre suñ xel daal dal na moom yàlla nañu yàlla may ndam rek suturaal ñu. jaajëf Mbacke jërëjëf waay. Action!